jàmbari lislaam la sëñ baara ay sa baay sëñ Tuuba mooy sa maame Seydil Muxtaar Mbàkke Balla Mbàkke jàmbari lislaam la jàmbar la mooy sa baay mooy sa baay sëñ Tuuba mooy sa maame Seydil Muxtaar jàmbaari lislaam la sëñ Bara mooy mooy sa maame Sidil Muxtaar Mbàkke mooy sa baay sëñ Tuuba sa baay loolu dëgg la sëñ Tuuba mooy sa maame mooy sa baay waaw waaw sëñ Tuuba mooy sa xalifa imaam sëñ baaraay sa baay loolu dëgg la sëñ Tuuba mooy sa maame xalifa ci baayam sëñ Tuuba mooy xalifa imaam sëñ baaraay sa baay loolu dëgg la sëñ Tuuba mooy sa maame mooy sa baay jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la mooy sa maame yaay borom kër ngana yaay borom gimin yaay borom taysir loolu dëgg la ba tawfeex yaay borom me Mbàkke bala Mbàkke bala jàmbar baraay sa baay tubaay sa maam borom kër Nganaar ay borom gi mi nu yaay borom tey si ak Mbàkke Kajoor yaay borom mee Sidil Muxtaar Mbàkke Balla Mbàkke Balla jàmbar la mooy sama Sëriñ Tuuba mooy sama Seex Sidi yaa yokku jumaa je juróom ñaari soorool toftal ja masaal waa Ndakaaru sant nooy gee Seex Sidi Muxtaar Mbakke Balla Mbakke Balla Balla ndeysaan yóbbu nit Màkka li alaaji kenn du ko lim alfun wa alfun loolu dëgg la soo limee sax da nga juume yóbbu nit Màkka li alaaji kenn du ko lim alfun wa alfun ay junni loolu soo limee sax da nga juume waaw alfun wa alfun loolu dëgg la ku limee sax nga juum wala teg ci gunge leen teg ci ñaanal leen alfun wa alfun loolu dëgg la ku limee sax nga juum wala teg ci gunge leen teg ci ñaanal leen alfun wa alfun loolu dëgg la ku limee sax nga juum wala alfun way alfun kulime sax danga juum waaw murid yi ti jaan yeen xadiroog laa yeen cena baa ki ña seen ñëpp nangu na ngir sa baax yeen murid yi ti jaan yeen waaw xadiroog laa yeen boole ngeen leen ñëpp nangu na ngeen leen ngir sa Mbàkke rey pas pas rey yee waaw waaw rey jëm lool rey it lool mënoon dese dese ndigay ba àggale fii waaw waaw xaadir bilaay wala ngeen leen ñëpp nangu na ngeen leen gis sa Mbàkke alhamdulillah malaayika yi sama taxaa dikk na day di dale ñaan mu yegale day yéen a ci fi magam bàyyi woon alhamdulilah sama taxaa dikk na day di dale ñaan mu yegale day ndeysaan yéen a ci fi magam bàyyi woon wax leen alhamdulilah kay sama taxaa dikk na tey jii na leen ñaanu yëgale tey yéen a ngi fi bàyyi woon alhamdulillah tey sax mu taxa dikk na tey na leen ñaanu yëgale tey ndeysaan yéen a ngi fi magam bàyyi woon wax leen li ñaanu yeggali kay yéen a ji fi magam baay woowaan ne leen ñaanu agale kay ne leen amin yéen a ji fi magam baay woowaan taxaa baax li ñaanu yeggali kay ne leen amin yéen a ji fi magam baay woowaan ne leen ñaanu agale kay ndeysaan yéen a ji fi magam baay woowaan taxaa baax li ñaan nu yeggale ka yéen gi fi magam say woowal ne leen amin samu taxaaba leen ñaanu yeggale ka yéen gi fi magam say woowal samu taxaaba siiroo Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg loolu te wér Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu te wér